léegi boo tardé kenn wax na ko tardé yow léegi damay laaj yow boo tardé kenn wax na ko tardé yow boo tardé kenn wax vingt onze ans serre Issa kii laa la bëgg may vingt onze ans serre sama nijaay laa laa la dencal parce que moom mi nga xamante ne mooy mooy mooy mooy surveiller sama xëy xamam la di koy may assu nijaay vingt onze ans serre xam naa ne nag. Euh, soxla woo ko waaye na nga ko na nga ko arrangé parce que ku la xool xam ne Issa ku rafet xol nga léegi nag nga dimbali ma a ngi daa war a suli moom nee na góor bu koy takk dina la jox 2 millions. kan nga koy joxe. ah yow yaa ah, man daal lamu naa ba booy joxe léegi warugar. yow doo jox Issa warugar. waaw d'accord dina leen neex. yow Issa doo ko jox eh, si bopp da laa neex ma ne Issa dina ko neex Issa góor yàlla de. tey sama waa jooju sama fas naaru góor góor sama mag Issa tudd Issa nuyu naa la bu eh, <laughs> <laughs> dama koy baab bàyyi Issa loolu naa ñi seetaan ñëpp rafetlu suñu hmm. ànd ak yéen saa su nekk su ma toogee fii sama xel day dal sama xol feex ndax maa ngi yaakaar ne que maa ngi leen di bégal ma nag sama xarit te loolu moo ñu tax a jóg donc nuyu nañ leen bu baax. Hmm. fépp foo leen mën a nekk nuyu naa leen sant naa leen bu baax. dëgg la li lan kontaan rek. lu la kontaan loon nii. dañ ma bàyyile benn xale. waaw war ma war ko maye muy bébé Mouhamed. waaw man lañ ko bàyyi la vraiment kontaan naa ci loolu euh, mu am benn xale nag boo xamante ni message la boo xamante ni il faut mu jàll tey xale bi papaam da ko ne boo jëlee not bu baax naa la yóbbu si am di mi ñëw man xaw man xale yi bëgg nañ ma noonu xale bi nag jël note bu baax papaam indiwu ko ci man uh-huh. léegi nag xale ba nag depuis une semaine ngi ni kenn mënu koo gis te dane woon na papa note bu baax baa ngi nii yaa ma ne mu amee note bu baax di ma yóbbu si am di mi ñëw note baa ngi nii boobu ba léegi ne papa ne ko xaaral tey ba sànq mu ne ko xaaruma maa ngi dem boobu la boobu la si a teg bët léegi nag may ñaan képp képp gis xale boobu jëppal la dëkk ah euh, sama voisin la jëppal la dëkk képp ku ko ko gis nag ma woo si 047 vingt 24 bu ko defee ma jël xale ba. léegi ñoom dañoo xam ban xale la. ah xamuñu xale bi da ngay expliquer xale bi nan la tudd ak yëpp. xale bi Cheikh la tudd. Cheikh waaw yaay mi ngi tudd ndey Diop. léegi nan la ñuy xamee xale bi kii la. xale bi daal man mosuma ko gis. dèjà. mandat bi ñu eh, papa mag yaam bi ñëwé sank sama kër doon nañ joy di expliquer may leen non bon loolu je veux faire mon devoir dans la antenne ah je veux faire mon devoir dans la antenne parce que xamé mo xalé non non lañ ma lañ ci man. waaw ah, vraiment loolu war na ma ñaaxat may gëna a góorgóorlu may ñaaxat moom may <laughs> non at bu bees bi yalla lay sa tak non. <laughs> wa am ni million tout sérieux li ngay wax moy man maa ngi tiit yëpp yow yaangi rétane c'est pas bien. sa téléphone allo Moussa xam nga nag am na yenn yoo xamante ne du ko def am ni bi ngeen di bàyyi muy message taxaw nii di ko bind ci suuf pour lan la tamit nañu waxante tamit liggéey. man de message sante wu ma. an sa téléphone yaa ngi ni doon ko sa pour di bind. man de message sante wu Sénégal maa ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di wax nag tey la tey suba la nettali ba ginnaaw suba la nag la tous les complications. mel dédicace koy may mayuma kenn dédicace nuyu naa ñi seetaan ñëpp ñoom laay may dédicace ndax ñoom ñoo ñu bëggal seen bopp mun ngeen woote saa su leen neexee sama xarit yi ci ngeen daal di bés ñu waxtaan en direct nag lépp ci euh, LCS la chaîne passionnément ubbi nañ ñëpp bunt yi pour ñu mën a waxtaan ku ne saafonte ki nga bëgg euh, mënta ñàkk sax ngeen def yooyu yëpp nag dañuy dem alu seetaan benn clip daal dellu si waat waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, boo mu mënee may Euh, ki nga xamante ne mooy Omaro ngeen may ñu ko parce que boobu ba léegi ñi ñaa ñu koy laaj Omaro euh, di wax ne alhamdulilah yàlla def si ndox bu sedd guy xam naa ne bientôt ngeen gis ko si kaw plateau bi loolu dellu sant yàlla la euh, ngeen may ñu Omaro bu Cheikh Béthio xale bi nga xam dafa xew si jamono day dem tubaarkàlla day dem. kenn du ko te borom kenn du ko téye la war na. sargal la war na Cheikh de cocoon mu sangam ba Cheikh Saliou am na jaajëf jaajëf Mbàkke jukkal la war na sargal la war na Cheikh de cocoon mu sangam ba Cheikh Saliou am na Allô Allô Allô C'est qui dans l'appareil Allô Allô C'est qui dans l'appareil la wax eh <laughs> émission bi comme yalla ko tuddé rek amal jom waj duggu rek sama nijaay jëlal crédit woo ma. allo xale bu kenn ko ci lo ne. ci lo. namu na la de. ma la raw lu ko kan la wala waaw. sama xarit ni ci lo no tuddu man ko la tuddu nan. Codé gay Gueye. Codé Gueye gay ma xarit da nga yok tuuti voix bi dégg bu baax. Kodou Gueye laa tudd Kodou Gueye. Kodou Gueye waa Kodou foo may woowee. maa wa woon Géejawaay. ah Kodou ana waa Géejawaay. waa ñu ngi ah yaa ngi si jàmm. ah bëggoon laa yàggal rek. xam naa Kodou Gueye. da nga xam am di. sama cousine la. ah da nga xam am di. ah ñoo ne mu teel soxla ma ko yow laa soxla. dégg nga nee na nga téye sa bopp soxlaw la. yàlla ma yàlla yow <laughs> ko. yàlla ma yàlla yow yàlla ma yàlla yow dama ne naan jëkkër amoo jëkkër sama jëkkër laa la bëgg a ngi ñëw doon ñaareel si man. Ah. Ah. nee na si jëkkëram la may may ma doon ñaareelam waaye code mi yéenew ma rek code yaa ma bëgg nag yow. kii jar na de. waaye yow may explication yow ay sama xarit bi fii la kontaan naa. waaye yéen waaye yëpp ci yow lañu bëgg bàcc ma ay waay kontaan naa ci ñoom ñëpp. ay ñoom sama ay mbaram lay <laughs> waaw ay ñoom bii nga yonn ay ñoom saatu yëpp yow la bii waaye iya, sama xarit yooyu tax ma bëgg leen barke Mouhamed iya, lagi, rek laa bëgg da ngaa bëgg Balla Gaye moo tax waa lépp dëgg la kooku moom rek dafa nuyoo sama amul amul eh. ñaan xam nga képp ko appel bu duré deux minutes sama xarit bi sa crédit dafa bëri na moo dara. waaw kay damaa jël temps pour ñëw rek pour jàkkaayoo waaw maa ngi kan mën ba suba sama xarit bi. barke Mouhamed yow xam nga waa Géejawaay. mel ligne bi mu saturé mel ñu dugg sama di jaay dañuy dugg rek leen. yow da ngaa du amoo ku la woo. rek man promotion lay wut noonu. baax ah, kontaan naa ci yow bu baax. waaw dama jaay éducation nag dina ah, ah, may Codou de sama xarit la. mënuñu ko. di ko nuyu bu baax moom Codou crédit oh. jeexul maa ko wax mu ko fay. <laughs> di nuyu waa Guédiawaye yëpp. waxal sa nijaay woowu la kenn woowu la nga sonal nit ci huit. am nga sens. Oh. foogoon bay wax ci code rek ma yàqaat code mi naa ma soxla ma ànd bi ñoo jox ma keneen ki keneen kan yow lañ tuddee man la keneen ah, yow lañ bëgg may eh, géeg waaye nag ngay dem di mu ci <laughs> code bi ko xool xam ne yàgg daal defante. code sama xarit dafa bëgg du defanteeg man. bis booy defanteeg moom. Hmm? Ah, li xam ne lépp dëgg la. ah di gërëm ñëpp di gërëm boisson bi nga xamantene moy boisson meilleure boisson da année boko déggé boisson bi Sénégal déglu le kancing déglu le cing bi déglu len moo këpp sama kaw. dafal nii dafal ni ni lañ koy def. wuy. allô allô wa wa eh, ay way am di dag ma xex du dag gëmu ma la. Ah! waxa rawa bay di la tooñ. non. ay way c'est travail. rama sax dama kaa non dama mere jëm. noppi li man ne dafa ma dama koy lijjanti ba la la ni. vivre. <laughs> xaaral ma retaan retaan émotion. ay waay. xaaral ma retaan la retaan émotion. retaan ko kontaan xol. waay rama dama laa bëgg rama yow itam dag ma neex. ñaw. eh oui ba benn nit rek la fiy neex. am na yoo xamante waroo ko def papa ga. ay sama xarit bi fii la ëppee nee naa papa eh, eh? non yow gañ xool wuy ma ñëwal ma jox la si lii. Ah. kees kees boisson bi wax ko tur bi. waaw maa ngi ñëw ñëwal ma jox la dix royal kees. waa ra doo ma wax fi boutique la boulangerie Baye Gaynde doo nangu dara. Chistar daa fa ñëw de. Cheikh Adi Ndoye bu namu dara dañoo doxantu naa ki ñu ànd télé bi moo rafet xanaa xam ne amul ay yére góor li ngay def ci télé bi moo rafet man yaay sama xarit bëgg laa bégal rek ay waay loolu rek ma tax a sama xarit bi maa neex yow am di bilaay bi la ëppee ma am ngay lan Mbarika Mbarika Adja Bariga dama lay may dama lay kaleel ñëw Ousin la sa bërëng sa bërëng bëng bërëng sa bërëng bërëng eh eh eh moom laa lay may yóbbaale ko rési kaleel ma Ousin bërëng sa bërëngal eh eh eh damay doo ko door amaguma dara maa ngi nii tàccu leen lii eh, eh. ñool eh tàccu leen lii fekke leen lii lay la e eh, la dara dafaguma dara damay soog a doon dara eh tàccu leen lii fekke leen lii lay la dara dafaguma dara tàccu leen lii tàccu leen lii bu amoon koy baa gàmm la wante waxtaan bu amul dogu bëgguma wante mbëggeel bu sincère bëgguma na ko kakataan rab ko ran di niroom moom na ko walax jaar bëgg takk fel daa amul ndig na ko nan nan bëgg na ku daa amul baat na dof la na dof la na eh, na loxo yi daje Ibrahima Diallo bokk ndey bokk sa tan jaam lay lële laa xamaguma dara defaguma dara ma ndey Fatou Maar wama sa sama daa yaa bëgg tër yaa wama ndey gele gase te yaa ma jàppale yaa ma yokku fit wam yaay déedéet tàccu leen lii lay la laa xamaguma dara dafaguma dara bakama sabari ma sabari patatama sabari borom nga ne dégg naa seet teet teet teet teet teet teet ne Ouzin dina rey nit. sama fecc ba jug di di sonn naa ah Ouzin li may def. non Ouzin Ouzin yàlla yàlla guddal say fan euh, vraiment may la carrière longue distance. Euh, hmm? carrière longue distance fu mu jëm. mooy longue vie quoi laa bëgg wax non damaa juum <laughs> xam nga Sénégal dañuy seetaan am na yenn corrigé yoo xam ne kenn ko corrigé. nit kenn ko topp moom li ngay wax. non non dama lay wax rek nit kenn ko topp ba mu sës. déggu li ngay wax. sama nijaay da war na ma dugal cours de soir Ouzin. <laughs> yéen dugal la rek. de soir. sama ni war na ma dugal coup de soir Issa dimbali ma da nga dugal ma coup de soir am li ngay am temps di dem entraînement ak yooyu nga may kay jàngal loolu dina ma neex trop nga ñëw sama kër di may jàngal. ñun ñaar lay boole di jàngalaale. ah ñun ñaar lay boole di. Nah, non fum mu nekk nii loo def rek ba ba fréquenté xam nga Issa bi may wax suba ba léegi nii yaa ngi ko oh. bëgg xam waaye bi laa dina la ump. non yoo xam dama lay contre quoi la dum. di ci wéet. nga ni ci Ah. teman mantu dara. Eh, yaa di Mami. lan man mii. non Issa ngi naan xelam bu ma yàqal waay. non sama nijaay dama ko xamee ëpp na. Issa kay man gedd naa c'est bon. c'est sûr da nga gedd. daana. ah. daan sëkk. bon di nuyu ñëpp caméraman eh, bu baax bi nga xamante ni moom mooy Salé moom ñoo ñu am benn eh, LCS moom caméraman boo xam bi film nii lay def. non film amoo écouteur. caaj lay la waaw. des fois mu def ni écouteur bi ne ba bëri fem de bëri caaj barke rasulullah yi non xool ko xooloo taxaw bi xooloo taxaw bi non du ko tàyyi tànk bi lay jëla sapp ko nii xam naa ne baaraam déy bii moom amee nga ko àq bi la keroog yomal nga lay moom ba nit koo xamante ne làmmiñam taxawul day def ni xool li muy wax lépp dëgg la nag looloo ma ci nag. ah ba pare dafa am ne nii. ni mu koy defee népp noonu la koy defee rek. yow topp nga kebe de. xoolal day def de dafa am ne nii. topp nga kebe nag ba mboq. dafa am ne nii <laughs> non ak am caaj nii lay wax. xale yi naan disons émission yëpp Kébé moo koy def parce que dañu naan non Kébé mooy filmé surtout kii euh, pa boobu di wax euh, kii bi lu mu tudd te kanam nga mel réunion picc sama picc yi kii picc yi lu Jean Fall Jean Fall. bon le journée de la ana Kébé. <laughs> ñu ne ko non Kébé ne stagiaire bi lu mu tudd. papa papa <laughs> ñu ne ko non papa lañ lay jox waaw mu ne ma non man booy papa xam nga dafa mën ay affaire goro plan laa ko jël ak booy seere ko quoi ku si naa la wax sa qualité bi ngay liggéeyee maquilleuse ñu ngi lay gërëm di lay sant sa maquillage baax na waaye waaye ma génnee sama kanam gi day niin poudre bi da nga wut mag da ngay jox ñu jox la budget mag parce que poudre chinois yi baaxul waaw

xam nga man fi mu nekk nii ma dama coofe xale yi ñëpp xam nañ dama coofe. waaye kanam bi boo ko xoolee comme bañ a dugub. parce que affaire bi ak ndodd bi nu nu mu tàccee nii xam nga yooyu xam nga affaire yi poudre bi la mooy suul affaire yi da mel ni xam nga dangay mel ni daal ce n'est pas dans ton assiette. waaw zuma rama nga xool zuma rama zuma rama zuma kanam gi ma xool zum ko waaw xam nga kii zuma voilà xam nga kii xoolal lii xam nga yii rafetul yii yii ay kii la yoo xamante ni. mooy loolu xoolal fii dafal nii waaw ma xool Sénégal suuf sëgal suuf xam nga boo gisee ma def nii yëpp Issa laal na woon kanam bi eh! jaa fay ni jaay jaa fay Issa. allo eh Kaayam. allo Kaay eh, la Kaay. yow yow sa armoire bi wala far nga génnee ngay mel ni <laughs> allo. allo. allo waaw. waaw kooku. waaw man Salma. sa va bien kooku. ça va bien Amina man la Salma. Ah? man la Salma Salma. Salma. waaw. eh bébé Salma. man woowu ma la dem. Rama euh, laa soxla. <laughs> yàlla ma yàlla àtte ak yow. non Salma man dama lay wër. Salma. waaw Régis wala ma ko mënee couper nga couper ma ko. li ma fi woote woon léegi am na ñaar yow man sama ayoo. dégg eh, na toog. ma toog ah. taxaw ko jóg. waaw waaw ci loolu. li nga nag joo euh, euh, jumoo de. allo. man yaa may daal. yàlla bu ngeen déggante eh, aywa sama xarit fii la ëppee am xam nga yaay mi wàññeeku. yàlla bu ngeen déggante allo. dafa soxor dafa iñaan kii. yàggee na ko. kebe doo ci wax. yàlla boo leen déggante. fii moom tuuti bu tooy may bës nii réseau bi laay jéem a dàq. allo allo waa Salma. fooy wootee sama xarit bi. Ah? fooy wootee. géej man woowee sama xarit bi indi mu ñëw bàyyi def. allo allo waa sama xarit bi ci loo nekk foo may woowee allo. dem na coupé na ko yaa fay yaa fay non fi mom ko ko bëgg wax wax bu à l'aise da ngay nuyu am na million ba paré nuyu ko boko nuyo après rek nga do ko wax ak rama waye fi ma ngir bouton bi mom tay direction bi man la ma ko yor direction bi c'est tout droit. waaye woowuñu la. ah woowuñu la. man légui sama fan si duggu légui ni sa fan sa bon xale bu woowu ma ne ma am na million yow laa bëgg. rama na la bàyyi li def. Oh. yow diggo lolé yow. fu ko fii de. yow si diggante yàlla waaye ba pare daal passe ma rama moom laa bëgg. waaw parce que man samay samay auditeurs dañoo nite dañuy wax ki ñu bëgg ba pare après nuyu la sargal la waaye say auditeurs dañuy wax ak yow ba pare coupé balaa doon ñu pare sax ñu loolu moo loolu moo may métti moo tax kenn du dégg tamit. di nuyu boisson bu mag bi nga xam ne directeur bi sama xarit la benn bakkan barki démb 31 daf ma invité këram ma fausse ko waaye dootul amati. léegi. tiit rek. kon li ma dëgg la kay. Ah, waaw waxal. waxal. danga ko faussé foofu nga toll woon de. dama ko faussé. waaw léegi dama ko faussé léegi euh, maa ngi lay wax reer nga invité ma reer. waaw ah, reer def miss yi wala. ceebu bi na la tudd. waa kii la tudd. <laughs> waa soxna mu di royal. royal la tudd <laughs> moom moo si yokk di. da nga bëgg promotion rek ak ñeme engagé xew mi di ko wàcc nuyu nañ leen bu baax yéen ñi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan boobu ba léegi leen sàggal gis nañ appel yéeg lépp kontaan nañ bu baax ah, yéen da ngeen bokk ci ñun moo tax ñuy toog fii saa su di leen bëggal eh bu ma daanal yow <laughs> yow biitin <laughs> kewee daantun diitin neel sur son arceau. Colombine le cœur gros, elle attend toujours Pierrot. Lui en bas et elle en haut, sur son petit croissant de lune. C'est l'âme qu'on d'une à une, s'agglutine au passage et se forme en nuage, escorté par les étoiles. Voilà qu'elle couvre d'un voile le ciel bleu sous lequel Pierrot meurt d'amour sans elle qui se forment dans l'espace. Pierrot lève les yeux en l'air. Pierrot scrute dissiper la brume, ouvrant la porte de son cœur à Colombine qui le pleure et dans cette Allô? Allô? Ah. Allô? Allô? Ah. Allô? Allô? Allô? Allô? Oui? Rama la soxla. ah. Rama. Rama wàcc ah ya, ko No, non Rama wàcc yow war nga wàcc nag. ah. yow da war a wàcc. dégguma. ma ne da war a wàcc soo fi def. ah Ramade loolu la yàlla dogal Ramade instant yi di wàcc na. maa fi ah, ma ko nekk na mu. ah. léegi ma ko kon. ma ma ko. ah loo tudd yow. Sonia. ah. Sonia. Ngone. Soxna. Soxna. waaw. soxna nga tudd Rama ngi nii xaama jox la ko. naam Rama. Rama kaa wuyu soxna. comme soxna nee na yow lay wër kaa wuyu soxna. nee na ma allo ma ne ko allo mu ne ma ana Rama laa soxla ma ne ko Rama. <laughs> Rama ne dafa demoon rési di réglé ji li ma yàq la doon réglé. allo soxna appel yi ma yàq la doon réglé. waaw dama ci loo nekk. maa ngi nii rek soxna da ngay wàññi kii bi tuuti nga yokk voix bi. ah mooy li nga def baax na. sama xarit bi yaa ko moom. seen eh, bi moom neex na trop. ah pour bëggal la rek la soxna nag ci loo nekk. gis naa ci sama bopp de. ah. dama la ah. koy jox saa yu la neexee sama xarit bi. Ah, ma jox. soxna fooy wootee. maa ngi wootee Gibraltar. ci fan. Centenaire. Euh, soxna boobu bëggee dégg dëgg de dara dégguma ko ci li ngay wax sama xarit bi. maa ngi dëkk am di sama noonu dafa bëgg euh, appel bi coupé da ngay yokk tuuti voix bi ñu waxtaan lu rëy allo soxna. soxna nag léegi nga mënta ñàkk nga duggaat ñu waxtaan Issa Ndiaye yàlla sama àq dal waaw. laay rëccu naa la kon man ngay gàcceel doo woote. allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. rek leel ma. am na mu ñoo nekk ah! si loo ne. maa ngi fi jàmm. mais ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax. Ah! yaa ngi ci lan. maa ngi ci jàng bi rek. yow foo dëkk ak fooy wootee. ak loo tudd. Daadu laa dëkk Daadu laa tudd maa ngi wootee Jili Mbay. yaa ngi woote Cité Jili Mbay. waaw yéen xale Cité Jili Mbay yéen ñi fa nekk ñëpp da ngeen am jom am maanaa. <laughs> waaw merci. ah. mais man numéro Dolce rek laa bëggoon ndax Dolce daf ma neex trop moom tamit. kan. Dolce la wax. ah Dolce. bul coupé léegi nii euh, code ñu jox la ko. numéro Dolce. jëlal maa la ko jox en direct jëlal. ah 77. 816. waaw. ah. 24. 86. yow numéro bi ma jox ah baax na. ah yow man de wax dëgg yàlla sama farce nga wax du ma la du ma la jox numéro bu baaxul góor ñi ko bëgg a woo ci àdduna yëpp ñu profité ma joxe numéro Dolce ngi noonu 800 77 800. 4 60 boobooy bu baax ba deuxième numéro baa ngi noonu. allo Rama. allo oui chérie. yow tamit mi na trop te coiffure yi ko koy defar. salon Khady Ndoye HLM 3. Hmm. merci beaucoup chérie xoolal bul coupé léegi alu dina la jox numéro Dolce d' li ma ko joxoon baaxul. ok merci baaxul ba pare nga koy wax maa ngi la koy jox. nit su bëggee nit ba di ko woo ah am kii nga jox ko ko. ndax daf koy bëggee. en tout cas nit kenn ko topp ba mu sës am na yoo xamante ni su ma koy def man même sa nawle laa. Hmm? waroo ma def en direct. man eh, non man man li ma naqari mënu ma ko wax issaa man Issa man Issa sama fii lay toog fii fii tëb fay jug fii fii fii fii. man Issa <laughs> non Issa billaahi Issa. nuyu naa ñi ñuy seetaan ñëpp nuyu ah, naa bu baax. waaw Issa bàyyi naa la waaw Elisabeth Tata nuyu naa la. Oh. tàkko yaayu bébé Anditi nuyu naa la bu baax nuyu naa ñi ñuy seetaan ñëpp. nda ak yaay bébé Rama nuyu naa la yaay booy. nuyu naa leen yéen ñëpp di ñu seetaan di woote. Euh, yaa war a zoom kooku noonu yëpp bu baax mun ngeen ci 14. 628 17 27 ngeen daal di bés 2 ci bu leen di neex ñuy waxtaan ak li leen li ngeen namm yëpp maa leen koy waxal ak am na ñëw leen mooy tax taxaw fii saa su nekk donc ci la ñuy dox. ngeen di woote. <laughs> dafa bu gaañu woon quoi pëlëfute bi mu gaañoo. léegi nag mu am xam nga meilleure copine am. Mm-hmm. meilleure copine kan pëlëfute bi. pëlëfute bi am ñaari pëlëfute yu jigéen la. léegi nag kenn ki di dem. dem ba kenn ki gaañu fa la doon fekk ñoom ñaar ñooy ànd guddi ak bëccëg. Mm-hmm. ndeysaan kenn ki jékki-jékki rek gaañu. bi mhm. kenn ki gaañu pëlëfute yi di jooy copine bi ñëw ñu naan ndeysaan comme copine Aysata ngi nii ndimbali leen ko Aysata commencé jooy. Mhm. di jooy. allo daal ne. Ah, allo. allo. waaw Adama Passe Marama. oui. Passe Marama man la soxna. ah. Passe la nga man la soxna Passe ah? Marama. yow la soxna. waa soxna ci loo ne man xamoon naa ne sama xarit di nga ñëwaat. waa gis nga ne dafa bañoon bruit bi moo tax ma ne xaaral ma waa dégg lii ci loo ne. <laughs> waa maa ko laaj ndax moo ngi seetaan bruyewul <laughs> ci loon de soxna. soxna. waaw waa soxna koy bégal. ah bégal ñëpp di la bégg yow rek. waaw. ma ne télé na ma ah sama xarit bi yaa ko moom. gis naa sama bopp ah. ne gis ci sama bopp. ay waay loolu for na ci man lay ci man lay di la roy. waaw ñu def noonu. waa d'accord soxna kontaan naa bu baax. xam naa xamewoo kay woo eh? ah. ma ne xam nag maa xamee waa woon naa fi. bu baax mais tuuti laay dégg ci li ngay wax. ma ne xamee mais mosoon naa fi bu yàgg mooy yàgg noonu ba a commencé. bi waaye ñu ngi yow xam nga ne dara fayu la sama xarit bi. alors soxna kontaan naa ci yow bu baax nga xamante ba ñu commencé ba léegi yaa ngi ñu suivre ndax première émission yi comme ni nga ko waxee ci la woote woon waa di ko bëggee bu baax ak waa Gibraltar yëpp allo comme am na dafa mel ne ku ñu sotti ndox bu sedd moom nañu dem seetaan clip rek ñëwaat day doo xam mën la pale mel ni bar <laughs> xaw ma pale jëm nga sax xaw ma old time daal ngay mel ni bar papa papa yow ma taxaw soof ah, da nga koy yemale fii <laughs> non papa yow papa mi <laughs> ah? ma ko ci man lu may ma war laa xool. ah Badou <laughs> sa noppi guddi yu mel ni antenne parabolique. <laughs> nuyu nañ baax bu paa papa Kara Chéri Aïcha depuis cité Kër Mbaye Fall. waaye mais papa ñaata ngeen la am. benn boobu laa xam Aïcha te mooy sama xarit moom may woo saa su nekk di ma bégal. papa de barki dem présenté ma ku dul Aïcha xaw ma lan. mu Aïcha la moom laay wax nii. kooku dëkkul euh, Kër Masar Sacré Cœur fii la dëkk. kon dafa ñëwoon foofu vacances. <laughs> waaye Aïcha day jàng mu ngi kër mbay paas. sa kër kër sa yaay ne la nga jàng métier gi ngay doxaat yow bu baax stagiaire yow embauché guñ la ngay wut ay gerte at bi ñu ngi si war a embauché ñëpp xam naa ne. allo. papa non licencié. non licencié. waaw. allo. waaw. salaam. est maa ngi en direct. ah est-ce que ma ngi en direct ci LCS Ya nga en direct kañ Yo am ni mu ñëw rek lé. Koku. Ma la ndé atu. Ndé asu. waaw ba ndé asu. Xamoma ma ki nga ah ndé asu sama xarit Wa. eh ndé asu. oh la la. Mendesu. xaw ma nan yow may sagal. woowu de. ndey sama xarit yàlla na yàlla defal jàmm. kontaan naa si yow. mais ndey si si ne. maa ngi jàmm yow am di doo bàyyi bu rama wax. Ah, nga bëgg a wax waxu télé bi yëpp. ah. ñam nga. doo noppi rama. waa ndànk ma dem koy wër. wëru ma rama laay wër ah. rëmale lépp di wër moo mu jëngal jamono baax ma jëlal lépp. yaasu oh, yàlla sa crédit jeex. sama crédit du jeex man naw ma dara. ki dara. naasu naasu. yàlla na àtte ngeen. allo. ana coppati. allo. ana coppati. coppati moo lay ya, woon ni waa fan si club bi moom laa lay doy. waaw coppati moo def fan club ya, Rama family. ah allo. laay xale si te Elisabeth yëpp mën nañuy wër. allo. oui Rama. waaye coppati. waaye su ne. maa ngi nii. wuy yow li nga def ëpp na. loolu de fan si club bi moom ñoo jàkkaarloo yow ya. dafa yow lu baax. bàyyi li ngay wax. barki Serigne Touba. Eh, bu leen ma teral day ëpp ci man bëgg leen ma rek. i eh, vraiment fan si vraiment famille waa dégg loolu lu koy fay ci àddina ko la ba daf yaraax ba kii fépp waa déggal li commencé bind commencé nañ am nga sama autorisation ah am nga sama autorisation bindal am du ñu nekk la ñuy def <laughs> xoola kañ ngeen di coupé sax yéen ñoo ñëpp ah kañ ngeen di coupé kañ ñuy coupé ñun duñu coupé ñun ñooy fan si wan am ni mi ñoo ne dañ maa bëgg suñ ne appel ñu appel buñ ne coupé ñu coupé lan ngeen namm namuñu xalaas dara namuñu dara. waa déggal lii. rab bi SDE te dafa pass ma yaay booy daf may neex. <laughs> merci ok dama. waa d' euh, merci beaucoup Ramatoulaye. waa wa d'accord chérie merci à vous aussi. pourtant nuyu ma yàqu si dara de nuyu ma ne ma nuyu ma am million loolu yaqul dara. naa leen bu baax nday asu yaay bu garama nuyu naa ko asu teranga sama góor nuyu naa leen yéen ñëpp di nuyu bu baax <laughs> di nuyu bu baax ñoom tam maama ma ay ta bay lay nuyu naa leen <laughs> émission bi yow laa ko ibbee yow laa tuddee allo allo oui Issa allo waaw nijaay am na yow doo dem eh. <laughs> ka tax daa dagg sama kis camembert doo dem yow mi sa daal dagg nga jël yow mi sa daal dagg xëy yaay dem. nee sa daal dafa dagg sa baraakis kamaam fan nga dem. ma ma ma neeral sa bopp ay Timberline ak ay MTC. baal naa la yow doom. sama xarit bi ci loo ne. lu baax lool rek nga wax raccroché yow bëgg naa ci yow. yow laa bëgg ndax yow sa fula dafa bari dangay wax li ngay wax ne kàpp. man de mosuma gis nit ku ñàkk jom mi sama nijaay ji laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaye sa nijaay ji rek lay woo Issa daf ma war a woo fan si club la ma créé foofu Castor mhm. mu toog def ataaya Issa ataaya ji nga war a baat te woo ma envoyé ñëpp message ne woo leen ma ay Issa li lu mu doon Issa yaa ngi may teg gàcce ak tag gi ma la tag rama sax mayetuma la <laughs> vente maa la doon ak Yacine ah boo ko laalee laal nga ma ñooñu dañ may wool ci suuf. tey yaa leen wàccee noonu jël Issa. waaw def naa erreur rek. ay sama xarit boobu noonu ak Yacine di nuyu Sémou Aliou Faye yaay yaay Fara Mbaye allo. waaw. waaw kooku laa ngi jël. waaw. naa def. maa ngi nii rek gërëm yàlla kooku sama xarit. ça va. ah allo. allo. ah kii rek ma koy def. liñ bu fekkee allo allo def. maa ngi fi rek ma la Fatou waa ci loolu la nekk Fatou Thiam. allo. mu xam ne waa Kastoor nii la ñàkkee jom. di nuyu waa yaraax yëpp Fatou nuyu naa la nuyu naa Babacar depuis yaraax nuyu naa. di nuyu seet boobu nga xamante ne moo sëy si woon démb suñu kër maa ngi koy nuyu bu baax muy jabaru Cerno di koy ma xookum turam ndax ku ñëpp xam foo jëm ah, mm, la tudd. du ko wax ndax ku ma dem doo àgg. xanaa eh, Cheikh yi moo namu ñu bëri la wax ne dala ñu tag. waaw ñu bëri xam Cerno <laughs> ñu bëri Cerno Euh, xam naa jeex na man boo ko waxul jeex na sax ñun jeexal nañ ko parce que man appel bi man xam naa ne man tey rama moom moomee vent amul benn problème yàlla jaale. ñi ñu doon àndal ñi ñu doon seetaan depuis ba ñu commencé ba léegi sax. rabat ci mel la jala ñu ñëpp gërëm leen bu baax. saa su nekk ngeen ñuy woo di ñu <laughs> di rafetlu suñu ànd ak yéen saa su nekk. nuyu nañ leen bu baax sàggal nañ leen suñu moment yëpp di di jaale bu baax sama moment Kantou Derviche nga xamante ne dafa ñàkk jëkkëram de moment massa bi maa ngi ñëw léegi ñu bokkoon ndax sama lépp nga di nuyu bu baax ñi ñu àndaloon nag waa Salon Khady Ndoye mënuma leen a fàtte fàtte si kontaan naa ci ci coiffure bi waa Chista boutique nuyu nalen depuis HLM 3 boulangerie Baye toujours Cheikh At Ndoye kontaan ci yene di and ak yene sa su nek di nuyu sama famille ñep ñi ma doon seetaan di ma bëggee kontaan naa ci yene Adou merci à toi Papa Kara Adama yene ñi ñu andalon yëpp merci à Tidiane sama directeur merci à vous. Adou wow. di nuyu ñep di nuyu. Farambay ak Yacine ak Simu Yacine waaw di nuyu ki nga xamante ne moom laa tuddoon émission bi toog munu fexe ba woote ñàkk jom mënu ko wees sama ndijaay jooju maa doon maa doon sa jarbaat waaye bàyyi naa dindi naa ndijaay bi waaw léegi on est de ndijaay on est plus de de de tout waaw mooy Issa dama la bàyyi waaw tout tranquille di nuyu ñëpp di nuyu ñi fi duggoon ak auditeurs yi fi duggoon ak auditrices yi bëggoon a dugg ak ñi bëggoon leen duggoon ak ñiy dugg ñi nekk si ligne bi saturé ak ñooñu ñëpp xoolal maa ngi tàggoo xool ligne baa ngi wàcc xool xool xool xool xool xool ñu ngi si xool trentième mais lii c'est grave. kan mooy trentième appel. trentième personne ñoo nekk nii actuellement yoo. en attente cent. dem na léegi 30 yi xoolal xoolal. ñoo bëgg a dugg nii kon Aliou fa nga yokk heure bi ñoo 30 yi dugg xoolal 30 yi xoolal xoolal xoolal lii xoolal lii wóor na woon si diggante bi xanaa man kuy def lu baax da ngay def lu baax rek continuer ko Issa a ngi lay nuyu bàyyi. ba di leen wax ni dañuy ànd ak léegi 52 minutes avec le grand Nicolas Omar ñu ànd ak 52 minutes xam li xew ci réew mi actualité ak loolu yépp ci di leen bégal ah. papa sama di bi du ma la ko may. moom nga liyaar bu ko jeexal ci may. xoolal lii. diiroyaal Sénégal tamit xool leen diiroyaal mi nga xamante ne dafa mat sëkk poids ak li muy jar. dem leen def lu baax la kaay ci